semaine bii boo génnee activités yi nga xam ne war nañ ko def ci terrain bi dafa waroon doon semaine boo xam ne it dañ ci waxtaan ak Ziguinchor waaye ne leen li ngeen ñu dénk ci nii lañ ko fekkee parce que am na ñu ko yoroon yor ko mille 2009 ba mille vingt 2022 moo tax bi ñu ñëwee santaane nañu ay audit jël cabinet. mu ñëw càmbar mbir mi waaye mun naa wax rekk ci gàttal ne benn biñ ci njëkk a gis mi ngi jëm ci kopparu mairie Ziguinchor niñ koy utiliser ñaareel bi mooy ci marché public yi gis nañ fi lu bari loo xam ne méngoowul ak yorin bu rafet ci marché public

suuf si def nañ ci lu bari loo xam ne jaaduwut tey gis ngeen benn titre journal am na lu tuuti lu mu ci wax mais loolu lu tuuti la mais li ñu def ci suuf si du yoon moo biñ ñëwee woo nañu tous les services yi nga xam ne ñoo ko seq ne leen nañu dakkal yenn lotissement yi nga fi yi ñu fi fekk bokk na ci bu euh, kanjala mi ngi fi Kenya mi ngi fi nous avons exigé de suspendre tous ces lotissements et de ko Ben pour voir ce qui n'a pas été fait dans les règles et situer également les responsabilités par rapport à ce qui a été fait bi am solo ñu aussi dans une situation chaotique waxna ko service de la voirie il n'y a rien à la voirie.